lépp yor poussé di ñaw di ñor di ay boor di ñor ba yëpp daje baax rafet tubaarkàlla moom moo am ndam tey li magam def ci dëj beeg li magam def ci ay moment yu woo xam ne ci woon ko traversé te waxu ko kenn man waxuma ko mais coon moom a ko nettali loole yëpp ñu ngi koy gërëmee abi di ko gërëme nday soxna yaay ju baax ak seen baay bu sage ba alaaj Ilimaan Nduur nga xam ne du diggal doom lu bon Ousmane xale bu ndég ndigal respecté magam mu dem parce que bu usmaan amoon nu mel ñu tëradi di foye seen mag mu dem tey ñu ñëw dama naan dañuy réparé waaye tey kenn ñëwul pour réparé ku ci nekk li ngay wax boo naxee dama koy xam te naxee amu fi ñi nga woo mën naa waat ne lu ñu wax ci lu baax dëgg na maa ngi lay gërëm di la sant di ñaan téléspectateurs yi ñuy seetaan kenn ku nekk ci sa xol na def ñetti laxlaas yónni ko coon mu dab ko ci biir fa mu tëdd yàlla leeral léppam waaw ñi seetaan daal ñu ngi leen di ñaan loolu balaa dara démarré ku nekk na ko ñaanal mi ngi noonu comme ni ko yonent bi salaay salaam waxee adduwaawu silaaxul mu'minin mm. ñaan moom mooy ngànnaayal jullit te Papa Thione Ballago Seck fi mu toll nii amaluñ ko benn njariñ lu dul di ko seddeel lu baax mooy njariñ li mu soxla ci ñun waaye tamit ay ñaan yi nga xam dañ koy ñaan mu doon ay leer yu jóge ci ñun dem ci moom eh, rek ñu daal di def lu ñu suñu dajaay wax defal ko fatiha salaatul fatiha ak ñetti péri salaatul fatiha daal di koy jagleel ak eh, lixlaas eh, buñ ci jógee nag dañuy ñëw ci jigéenam soppeem rakkam bi di soxnaa bi ba tunduur soxna bi Ndour ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau ak Télé Sen TV. jërëjëf Cheikh maa ngi lay nuyu euh, di la sant di nuyu tonton Lamine di nuyu Ousmane di rafetlu woote bi ngeen ma woo di Sen TV mu moroon na nekk xëy na ci beneen anam ci beneen woote. waaye xëy na sunu borom nii la ko nammee ñu ñëw fi tey pour sargal nit koo xam ne nit ku mag la ci ñun nit koo xam ne nit ku am solo la ci ñun di suñu dund nit ku ñu bëgg sopp ko tey ji yàlla def li gën mu dëdduñu kon soo ma boole ci ñi nga xam ne danga leen woolu fii ci tele bi man duma def lu dul am sawarte ñëw am itam chance bokk ci ñi nga xam ne dinañ ko lim ni que bokkoon na ci ay nitu Thione Ballago Seck ndax xam Thione Ballago Seck man ci ni ma koy tënkee mooy euh, chance la chance la am xam ko ma bëgg ko yàlla boole ma ak moom mu bëgg ma am fu ma teg umpul kenn depuis mu dëddu ba tey ay mbokkam sax dañ may woo di ma jaale Youssou Ndour démb daf ma woo di ma jaale Thione Seck kon ñépp xam nañ ni que sama diggante ak Thione Seck lu dëggu la lii rek nag moo ñu mun a taaxali mhm. mooy que ni mu jiitu ñuy ñaan yàlla mi nga xam ne ak yërmandeem yàlla mi nga xam ne moom mu mun a teral jaam ca aljana yàlla na ko sunu borom yóbbu ci aljana yu gën a kawe yàlla atte ko ci yërmandeem wane la ko ak xaritam ba seyduna muhammad alayhi salaatu wasalaam jërëjëf Cheikh. jërëjëf soxna Abi Batou Ndour waaye tamit suñu wet ñu ngi ci ànd ak rakk ci eh, Thione Ballago Seck waaye tamit mën naa ne rakk la waaye doom la tey Thione mag la ci moom waaye papa la ci moom Seydina Ousmane Seck ñu ngi lay nuyu di la jàlle it lu ñu bokk muy con Ballago Seck. ah. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. Cheikh dañuy sant yàlla. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm suñu wéyjur yi waaw mais suñu wéyjur yi nag euh, dañuy sax jiital alaaji Ilimaan Ndour mi nga xam ni mooy bàyyi abi ak suñu yaay ndey soxna doora indi nag suñu bàyyi alaaji Cheikh ak suñu yaay nogay te loolu su ma ko waxee Lamine Naar mii sama met dina xam ni ci yoon laa ko teg gërëm suñu waajur ñun ñëpp ñi fi teew ndax lii jataayu teraanga la jataayu jëf ju baax la kon ku ci bokk rek war ngaa sant yàlla julli ci yonante bi waaye gërëm say waajur mu mën a bokk ci lu mel nii eh, bi ñu jóge ci lool dañuy eh, sant sëriñ Touba nag suñu wasi la di ko jaar ki ki ko fi nekkal muy mun Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi waaye may nuyuwaale bu baax sama sëriñ Cheikh Bass Abdou Khader Mbacke di ko ñaanal moom mu yàgg fi lool di ñaanal kilifa diine yëpp ak kilifa aada yi ñëpp rek ñu ñaan jàmm sax Sénégal e di nuyu nag képp koo xam ne yaa ngi bëggee télévision bi ñi ñuy seetaan ñëpp fii ak bitim réew ki e leen jaale parce que ça se voit que ni coon li la mi nar wax léegi rek coon dafa dafa liggéey loo xam ne génn na sax waxuma famille bi mais génn na frontières yi donc perte bu mel noonu bu amee eh, ñu dégg ci mag yi ñu naan métit bu ko ñëpp bokkee ak yow day daal di wàññeeku donc finalement moo tax bi ma fekkee léegi Aby mu toog ma ne ko yow lañuy jaale on a beaucoup parlé de toi tey ci dëj bi parce que avant may ñëw fii Ngone Ndour woo na ma jox ma euh, Ibou Demb Mara Dieng laa njëkk a gis ci hôpital bi ñu toog tuuti Bouba Ndour ñëw Youssou Ndour ñëw ñoom baab maanaam ñëpp macha allah wane ni coon du faramaaren bi rek. Mhm. wala du géwél bi rek du waykat bi rek mais coon monument bi nga xam ni international la moom lañu ñu perte kon ñu di ko jaale ñëpp nag. waa kay jërëjëf. jërëjëf Ousmane Seck Thione Balago Seck la tey jii kenn ku ci nekk mën na ko jaale sa morom ndax it nag am na loo xam ne jëflante na ko yow euh, ñi ñooy suñuy invité tey ak ñenn ñi nga xam ne dinañ leen jël ci téléphone yi ñoom it ñu wax ñu yëg-yëg bi nga xam ne am nañ ko ak perte bi nga xam ne perte nañ ko kii di Thione Ballago sekk ci antenne bi euh, am nañu tamit ki nga xam ne moom moo di suñu papa euh, Ouza moom mi ngi ci ligne bi papa ñu ngi lay nuyu di la jaale lu ñu bokk. jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa ngeen ah bëggoon naa ñëw nag waaye nee naa leen daf ma métti tey xëy na sax man tey laa soog a dëkk. sama yaay yem si na ko coon yegg si mais mbir mi métti na. waaye nag dama taamu toujours di wax nañ wax bisimilah rahmaani rahiim bala maa commencé wax yàlla xéwal ñu yëpp ci alhamdulilah rabbi alamin seen émission am na doole. waaye bi dinaa leen wax ne hmm, la culture sans Thione Seck. c'est autre chose la culture man sama projet yëpp loolu lay xalaat. d'ici dix ans war nañ dem sans Thione Seck vraiment mitti na ma mitti na ma mitti na ma mitti tey jii ma wax sama doom aji nee na ko man tey nag laa am sugu am dëj ma xoolee réfléchir ne cinquante ans maa ngi xam Thione cinquante ans moo war a toog at bii suba Thione la culture sans Thione c'est autre chose waaye comme ni ngeen ko waxee rek ci yàlla lu ñuy jóge ci saabaro lu ñu delluwaat saabaro moo décidé lii di soñu nangu ko di ñaan maa ngi profité seen émission bi musiciens yëpp waykat yi kenn dàqu leen way naa daal beneen yoon ne nañ téye laa ilaha illallah wax ci laa ilaha illallah fu mu toll moo koy dimbali bismillahi rahmaani moo koy dimbali lixlaas moo lixlaas salaatu ala nabi salaatul fati loolu koy dimbali actuellement um som loo maa ngi profit ci seen émission bi di ñaan bépp musicien ñoo fi dàq way métier yàlla lañ yor mooy compositeur. Mm. donc ñu ñu jël lu ñu yàlla baaxee mooy baat bu neex ñu ñëw toroxlu sukk poñe sans borom jaar ko ci yi ak mag yu tedd ñu fi jaar ñëpp ñu ñaan sàmm mu jéggal coon Seck mu jéggal ko mu am solo fi mu toll nii jéggal ko li may waxee rek ci barke bismillahi rahmaani rahim yi yërëm coon Seck yërëm julli jam fa fekk yërëm ñi mu àndal ñi ñi war a dem. amiin ci barke bisimilahi rahmaani rahim bi mu ñu yërëme def ñu doomu aadama bañ ñoo def bàyyi ma ñu delluwaat ko ñaan ko ci barke bisimilahi rahmaani rahim bi mu ñu yërëmee saxluñ ci baatu laa ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah ñu yërëm ko noonu xéwaluñu àjjana ñëpp kuy jullit nu ko caali sax yeneen ndax rasulullah la ñoom man daal lool lay ñaan su mbokk artistes yi am nañ métit bu métti nag di ko jaare Sénégal gépp di ko jaane àdduna waaye moom li leer ba leer dundaat musique la culture Thione Seck vide la boo xam ne mënatuñ koo uh-huh. jaa ngeen jëf di leen sant bu baax di nii ñëpp toog na bu ma limee juum. Uh-huh. Cheikh Sarr laa ci ak sama jarbaat abi ak sama doom ji Ousmane jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf. Uh, ak uh, suñu uh, nijaay El Hadji Lamine Naar nga xam ni moom la tuddee taawam. ah xam nga xam nga tey ci jotaay bi dañoo am loo xam ne mosuñu koo am. nit ñi turam lañu daan dégg rek waaye mosuñu gis jëmmam. jërëjëf tey jii tey am na ñoo xam ne buñ ko gisee ci télé bi dañ naan waaw góor gi moom kan la. waaye kii xaritu Papa Thione Balago Seck la. mu di El Hadji Lamine Naar Diop mi nga xam ne moom la dippee taawam bi di Lamine Naar Diop. Euh, tey jii euh, Papa Ouza démb bi nga yëgee xibaar bi ban yëg-yëg nga am. bette bette <laughs> doomam moom bi fa aji aji aji aji mooy doomam aji maa ko wax mu daanu mun man mënul ne c'est pas vrai mu ne mënul ne après sama xel ma daal di xool ñu woote ñu ne dëgg la aji daal dama génneel ndeysaan enregistrement bi mu ko mujjee yónnee bi muy wax ci morceau congolais bi naa xaw ma di ko expliqué aji mais ma ne àdduna daal ay nax la àdduna ay nax la vraiment li may wax rek moo ci ne rek mes Euh, coon moom mm, ñaan rek yàlla xaru ko àjjana rek waaye li ci des moom. Mhm. coon moom def ni vide boo xam ne def naa d'ici dix ans duñ ko rattrapé man personnellement moom ma jàpp ti suba tey loolu bi ma woowee ma ñëw ci plateau may leen sérieusement mën ma taxaw ci plateau tey ñun moom rek. di di sant na suñu góor googu euh, ki ñu tuddee suñu taaw bi maa ngi koy sant bu baax parce que li ma wax dëgg la mosuma mosuma ko gis waaye kóllëre kóllëre la loolu ma tax moom tamit yàlla na yàlla may fan gudd. may xale yëpp fanu gudda ah, ba ñu sut seen i seen mag ji seen nijaay di coon ay fan yu bari di ñaanal tam euh, sama doom euh, Amadou taaw beeg mhm. ak ku jigéen ki ak ki fi kiñ ci a xam muy waali yàlla jox na ko sas boo xam ne am na sas nag li ji ko xale na deñ xam na baayam moo doon moo doon ponkal mi macha allah la plus belle voix du Sénégal moom laay toujours wax toujours kooku maag sama doom jooje yam abi la plus belle voix du Sénégal léegi laa seetaan seen télévision biir fii avec sama jarbaat Youssouf mais vraiment c'était terrible donc kooku yàlla na ko yàlla xare àddina baatam nag yaakaar ku jaamu ko fekk àjjana parce que baat bi baat yu àjjana nee naa la voix angélique elle est elle est elle est elle est divine hmm. et est elle est miséricorde sa mélodie loolu yàlla nañ ko yàlla eh, jàppale sama borom ci daraje géeru géer ñi amiin Muhammadu Rasulullah xare ñu ko àjjana jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jërëjëf jërëjëf euh, suñu papa Ouza Diallo kàddu yi am na solo rafet na te it nag seede yi am na solo loolu rek la bëgg xanaa di waxaat rek ni sénégal yi ñu ngi leen di jaalewaat lu ñu bokk ndax papa Thione Balago Seck kenn ku nekk mën na ko jaale moroomam kenn ku nekk mën na ko jaale boppam ndaxit it nag liggéey na ko ci réew mi tey jii martyr la ñu ñàkk tey jii parolier la ñu ñàkk waaye tey jii écrivain la ñu ñàkk ndax ci ay kaddoom yu set yu sell yi nga xam ne daan na koy rotal nit ñu bëri daan ci defaru nag nit ñu bëri daan ci defaru dangay dégg nit koo xam ni naan papa Conde man wayam bi saa yu mu ko déggee day mel na man lay waxal parce que li li waral loolu mooy alquran la li waral loolu mooy hadis la papa Thione boo xoolee répertoire bi mu dalee way ba bi nga xam ne gëj gëj nañ ko dégg mu way way boo ci teg da ngay gis nga euh, dëgg la ci wax da ci wane dëggoom wane ci fulaam na ci faydaam waaye wane ci bëgg gi mu bëgg tamit yàlla bëgg gi mu bëgg rasulilahi te xam ni tamit dund dafay am waaye dee dafay am kon yàlla daal mi ngi noonu moo dëggalaat waxam ja ni kullu nafsin saayixatil mawti kullu man alayha faanin wa yabqa bakkan bu ñam dund dina ñam dee ala kulli haal waaye tamit jàppal lépp loo xamante ni si tooy na dina ma sa wow kooku la ñu fas yéene waxtaane tey mu di euh, Wally ba euh, mu di euh, Thione Ballago Seck ñu koy jaale bu baax a baax sénégalais yëpp di ko jaale njabootam euh, ku ci mel na Lamine Naar Seck di ko jaale tamit kii di doomam ji di Waly Balago sekk di ko jaale tamit doomam euh, nga xam ne moo di Momi euh, Seck waaye di ko jaale taawam bu ñu nee taawam nag xel day dem ci président Bougane Gueye Dany nee naa ko tey fi mu toll nii démb nga ngay doon nga doon góor dëgg dëgg dëgg tax yan bi nga xamante ni si suñu borom teg na ko sa kaw nga war a taawu njaboot gi yëpp tey jii ku ci feebar yaa war a faj tey jii ku ci jàq yaa war a toog ko tey jii ku ci dëng yaa war a jubanti teg ci yoon waaye alhamdulilah ba papa coon tamit li war ci njabootam def na ko ba kenn ku nekk xam lii sa wareef donc euh, président bu Bougane gi Dany yan bi du ñu ñaan mu oyof dañuy ñaan mu diis gann waaye ta nga attan ko mu ngi noonu ñu ngi la koy jaale di ko jaale njaboot gi yëpp yëpp yëpp seede yi yaatu na bëri na boo xoolee li ko dalee ci président de la république ambassade amba ambassadeurs yi nit ñu baax ñi ñëpp jóg nañ seede euh, donc kooku la ñu ñàkk mu di euh, Thione Ballago Seck sama nijaay Lamine Nar euh, Diop tey su ma la waxee kan mooy Thione Ballago Seck lan nga ñu war a wax Thione Thione mooy jullit piir fonk métier am fonk liggéeyam fonk ay mbokkam fonk ay kóllëreem fonk njabootam lu ci ne man naa ko tas euh, li may njëkk a wax danga nga wax bugaan man nit ko enraciné laa te dama gëm nit bu sa goro génne àddina na nga war a taxawoo pour doomam ju jigéen ji nga yor bañ a jooy baayam bañ a tiit bugaan tey xam nga léegi xew yi dafay am nit ñuy déborder ak ñoo xam ne ñi dañuy ñëw di def lu warul mu am ay xale yoo xam ne ay sécurité lañu di téye nit ñi ak yooyu ndax xale yi nga xam dañoo ñëwoon ak naqar di jooy ak ñi doon def lu dul yoon dafa bari hmm. ay portable réer na fa ay xaalis parce que mbooloo mu toll noonu hmm. kenn mun leen téye waaye bu buggaan déggee ne bii mbokk coon mer na day génn ca buntu kër ga nga naxante leen ak ñoom ndax ñii coon bokkal ñoom moom dëj bi loolu naw naa ko ci tooguñu lu bari mais mag bëti kese la am na loo xam ne bu ko defoon ñu ber rek mu toog ak ay xaritam soobuwul niinul mbatt ci diw gi danaa danaa ko desee naw bu fa defee milliard sax comportement lay naw man waaye ni mu def tey di ñëw bu ca buntu kër ga seet bokk ci yoon yi duggul ak nangam di rafetal di defar maa ngi ko ci félicité di ko jaal encore une fois te ñu ngi koy dénkaat moom i doom ju rëccul la demul fenn dafa yem bi mu juddoog léegi kenn seetu ko fenn kon ñu ko koy dénk coon nag li ma la ne coon jullit ak xam la coon métier mii nga xam ne yàlla def ko ko jox muy musique guddee mu dem musique bu yeewoo bu bërsëtee mu pare ay cinq heures du matin wala yooyu li muy njëkk a def mooy dem jënd ay mburu ndékki ay lu ne pour waa këram ba pare du tëdd te julliwul suba te lii may wax it ñëpp a ko xam ci moom te rus naa wax loo xam ne ñi toog ñu ngi naan du dëgg wala di ma wokkaate wala rak wala rakkam ji wala ay doomam xeet ma wallaahi azim ay doomam ku déglu li xam ku julliwul da dóor xale yi sax bu ñu ko daan ndax dañuy jékki-jékki heure julli ñu muuru pour mu neexal leen parce que xale yi tuuti moom yi yàgg naa muuru am sept ans ak Fat Bintoog ñooñ ñëpp dañ daan muuru bu ñuy julli ndax loolu la dogal ci këram Mohamed mhm. mooy taxaw waxtu mu jot mooy taxaw jiite moom yàllaa ko xiir ci loolu fii ñu ko denc Mohamed laybal moo ko wuti ndax yooyu yëpp lu ci ne am na werante waaye bu waxtaan amee dëgg feeñ coon jullit la murit la waaye moom moo waxoon ne dafa bëgg bu nelawee jege ay doomam ndax buñ ko yóbboo fu sori mën na am xale yi nañ def premier mois bi danañuy dem ba premier année bi waaye dina dem ba mu yàgg ñu sonn wala ñu toxi waaye bu dee fii nga xam ne matul ñaari kilomètre ak këram xale yi heure bu seen xel demee ci moom dañ dem siyaare ko njaboot sa njaboot bu ñu lay siyaare yàlla daf ci def yërmande yàlla yàlla de yokk yërmande booleeg nag di yàlla ne ñeent fukki jullit bu ñu dajee moo mhm. am kenn koo xam ne kii am na njëggal yàlla dina jéggal néew bi waxuma laa fu ay junni nit kon yàlla mën na def ñu ñu ñu ñu am yaakaar ci coon mhm. coon musul nangu doye di ñàkk fayda dëggu na waaye bu waxee li muy wax pare. bu mhm. denc mer. pare na ca pare na ca. noonu la ko yàlla bindee amul nag ku ñemewul wax dëgg man nii nga xam ne magam la ma defoon def ma léppam dañuy xuloo yenn saa yi ba sonn ci mbir mu jël position bu demee ba xam ne maam bi mu ne ma tafsir moom moom may woowee tafsir. tafsir moo ne wax nga dëgg ne nangam ak nangam. waaw boobu boobu façon la kooku mooy coon sekk bëgg ay mbokkam bëgg ay rakkam. kenn ku ci ne si xanaa yow loo xam ne lii xam naa ko lu bari xam naa ci lu bari comme ci ber wutal na la ay instrument jox la ak na instrument chéré comme ci ber wutal na lool ñoom ñëpp dañu nekkoon ci waawam di ànd ak moom di ko gunge waaye bi ñu beroo comme ci ber wutal na la sa taraangay bopp ne la góorgóorlu kon kooku du égoïste loolu laa laay waxagum ci coon jërëjëf suñu nijaay Alaaji Lamine Naar Diop mi nga xam ni mën nañ ni way wi nga xam ni Papa Thione Balago sekk njëkk na ko way muy nekk wayu boppam moom mi la ko wayoon ci liiti liiti mu nekk way woo xam ni boo dégloo baatu Papa Thione Balago sekk dañ ci gis boobu nekk na ndaw boobu nekk na tuut tànk kon way yàgg na ci li nga xam ni moom moo di Papa Thione Balago sekk liiti liiti nag xam naa ni buñ ko jot gi mayee ci kanam tuuti danañ ci may tuuti téléspectateurs yi ñu déglu baatu Papa Thione Balago sekk bi muy njëkk way ak bi muy way wayu boppam dañuy ñëw ci soxna bi ba tunduur mi nga xam ne rakk la soxna bi suñu nee Thione Balago Seck ne Aby diggante abinduur Ndour ak Thione Balago Seck lan la ci mën a jëlee. man dama màgg ak euh, Thione Seck ndaxte ma Mapenda Ousmane mii xam na lu may wax moo njëkk takk suma mag ndey sena bu mi topp ci Youssou mhm. tey jii bu ñu amoon njaboot xëy na man sax tuuti laa koy magee ndaxte xel boobu temps yàgg na donc on a grandi avec Thione Seck mhm. Thione bi ñëpp dañ ko bëgg comme ni ñu bëggee Youssou coon dañ ko jàpp comme Youssou ndax dañoo yaru ndeysam bi mu sey Mapenda moom ak euh, coon ñoo bokkoon benn kër kon kooku famille rek lay doon yàlla nag seppi ma ci mu gën ko fésal lu ma mel ci moom ci coon sekk laa jàngee way damay teg euh, benn magnétophone Youssou moom a ko jëndaloon dugal ay kasetu coon sekk di ko répété suba ba ngoon kon coon li li li ànd boo gis ci àddina bu ko dëgg lalee sincérité bu ko lalee mhm. sunu borom boole leen ànd boobu dafay yàgg fawta dara du ñaaw ndaxte xeebu ma ni ndaw laa déedéet coon dama ko wax duma laa bëgg te yàlla tax mu won ma ni ka man maa la gën a bëgg day am des fois ay mbir yu am ma yëkkati téléphone bi grand ne ma ma ko grand del nii wala defeel nii wala defeel nii wala defeel nii. Oh. ne ma d'accord noonu nga gisee ma ne ko noonu laa gisee grand daal bàyyi mu sedd banaliser mu bàyyi mu sedd mu jox ma cër xoolul at yi ma magee daf ma jox cër ba way ma way woo xam ne way woowu dootul fay. wallaay déedéet. way dafa dafa way li ñu séq. Mm-hmm. li gën a neex ci way wi dafa ne bu ma doon buur yow laay dénk sama kuur xam naa ni doo ma joué tour kon loolu mu wax loolu moo nekk sama diggante ak moom maa bëgg Thione Seck te yàlla tax démb bés bi yàlla bu mu amati ndaxte doy na war nettali ko sax dafay doon lu diis mhm. waaye démb doy na waar doy waar boo xam ne dama ni munul ne yàlla na ma yàlla baal mhm. ndaxte wax nga ko léegi bakkan bu ñam dund dafay ñam de mhm. waaye ne di nga ko bëgg-bëgg boo xam ne da ngay ne sax nit kooku du génn àdduna wallaahi dëgg la loo mu nekk lu bette mhm. Youssou sànq daf ma woo ma abi coon mi dem sax affaire bi bett na ko mu ne ma coon mi dem démb deux heures et quelques du matin la ma envoyé message whatsapp ne ma suba il faut que ñu wax pour xool mu ñuy def tey mu woo ma ni ma coon mi dem affaire bi sax bett na ko démb boo seetaanee tele yëpp seetaan Sénégal ni ñëpp jóge ngay xam ne Thione Seck fan la ko doomu aadama yi tegoon ndaxte démb ñëpp xam nañ dañoo nekk ci pandémie ñëpp xam nañ mbas mi fu mu toll ci àddina rawatina ci suñu réew mais kenn faaleetu loolu ku ne rek yaa ngi bëgg a wane mhm. sa cofeel gi nga am ci moom ak métit gi tam ni mu dëddoo coon nekk ni mu nekkee ci sama xol bi leer na ma leer yàlla képp ku may seetaan nii la coon sekk nekkee ci sa xol firnde bi muy démb mu nekk nit ku tudd coon dangay tudd diine képp ku muy woy faaw mu cof ci yàlla mbaa mu cof ci yonent loolu firnde gëm-gëm doomu aadama la ndaxte man damay jàpp ni que métier bi ñuy def. à chaque fois soo même boo boo nekkee artiste ni ñoom boo dégloo nit kii di way ci ay kàddoom mun ngaa wax la personnalité de l' artiste pour man. donc personnalité Thione Seck muy gëmul lu dul sunu borom mi ko sàkk soppul kudul Seyduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam mu nekk perte bu mag waaye maanaam mun nañ ne sax du perte. ndax li mu bind bëri na ba ko fi macha allah ñëpp mun nañ cee root ay nawleem yi nga xam ne ñoom la maaseel sax mun nañu root ci coon bàllaago sekk ndax macha allah répertoire bi lépp riche te amul benn faay. bés bi ma gën a neex ci sama diggante ak coon sekk mooy keroog bu ma gisee coon yéeg ci seenu bersi dama ne mission accomplie. Eh, ndaxte Youssou dama bokk ak moom ndey ak baay. ku ak sa bàmmeel musuma teewe Youssou Ndour wax ci nit lu ñaaw musta am ku dee nag ak sa bàmmeel du dama bokkat moom moo tax may wax wax ji mësut am muy delloo njukkal ni ma bëggee coon yu di ma ko delloo njukkal noonu ndax ba muy xam coon xëy na man judduwuma mais bu demee ba reconnaître sama cofeel ci Thione Seck ba yëkkati téléphone am jaale ma kon kooku xam na ni man suma jàppee damay jàpp loolu nag gisuwuñ ko ci kenn ku dul ci moom li mu wax démb Thione Seck dafay jàkkaarloog man ne ma sama xol laa ko def laa la def loolu dafay dëgg dafay dëgg kon ñuy ñaan yàlla mi nga xam ne moom dong moo am yërmandeem mu am itam yëggalam ñu koy ñaan ci bésu yor yooru Seydina Limaamu Muntazar yal na ko bàyyi laay teeru ci àjjanay Firdaws yal na ko mag ñu baax ñi mu bugg ñépp yal nañ ko teeru te nag loo gis rek ci àddina day am misaal mhm. buy tax nit ki di rafet njort démb ku xamut sax war nga xam ne lii nag rafet njort rek a fii sës may profiter cher ci sa occasion bi mhm. di ñaan coon dafa bàyyi njaboot njaboot ji ki ci gën a fés Wally Seck la mu nekk sunu doom Wally musuma woowee abi bàjjan la may wax ñun ñëpp moom la wax mu nekk ndaw am yoonam téq-téq yeeg pax yi bëri na ñu dawal yërmande xam ne ka baayam bii daan ko épaulé ba mu toll fii mu toll macha allah confirmé itam ci kanamu baayam. bu paayam dellusiwaatoon léegi wàllu du defar toogaayam. macha allah ndaxte li mu mel def na ko ci njabootam. nay ñaan sénégalais yi ñu accompagner ko te wàññi tuuti wax ji pour mu mën a ànd ak lucidité am xam ne wéeruwaay bi mu amoon dafa wàññi ko démb Youssou dafa ni ku sa bàyyi génn àddina dafa mel ni dañ la bàyyi ci àll ne la demer réewul kon may ñaan képp kuy góor nga taxawu Wally sekk nekk baayam xëy na di nga mën a dina jafe nga remplacer coon mais ñu taxawu ko taxawu baay ñeneen ñi ci des taxawu ko taxawu frère gunge ko wàññi tuuti wax ndaxte am na nu muy demee rek ci jamono ñu toll nii mën naa paniquer. te bu paniqué mën naa indi jeexi jaaxati kanamu ndeyam wala ti kanamu sëram yeeg frère am yi. Mhm. ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy yaay jigéen itam ñu soutenir Ndeye Fatou ba nga xamante ni du wéet ndaxte jaaga xamul kenn ku dul Thione Seck boo leen gisee. macha allah seen couple bi da koy xooree sa xol bi dafay set ndax image bi ñuy wane positivité bi ñu nga xam ne moom lañuy génne ci doomu aadama yi di ko gis mhm. kon may ñaan yàlla mi nga xam ne moo am yërmande ci barke bàyyi Laay Seydi mi nga xam ne tey jii bésu limaamu laay la muntazar yàlla na ko sunu boroom yóbbu ci ardina firdaws yàlla jéggal ko bépp bàkkaar yàlla teeru ko wane la ko ak sang bu tedd bi Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam jërëjëf Cheikh jërëjëf soxna Abibatou Nour boo xoolee sax Thione euh, Ballago Seck bis bi nga xamante ni si moom la génn àdduna démb tey jii tombeek appeluk Seydina Limaamul Mahdiyu sallallahu alayhi wa sallam xel dafay dal ndax tey jii rek dégg nañu porte parole bi euh, moom Mouhamadou Lamine Laay yëkkati ay kaddu jëmee ko ci Papa Thione Balago Seck wax gént bi nga xam ni gént na ko Seydina Limaamul Mahdiyu nga xam ni kon gént boobu la yàlla dëggal tey te yoo Seydina Limaamul Mahdiyu ci biir gént bi nee na mi ngi naan ko ana Thione Seck ana Thione Seck ana kon xam nga ni loolu ki xam dëgg-dëgg te xam gént